nekk nit boo xamante ne bu généré la te aussi li ñu ci gën a marqué ci moom mooy dafa ñëw ci làmb ak objectif objectif bi mooy lan mooy jëlee làmb fii mu nekk yóbbu ko ci kaw yóbbu ko fu sori yóbbu ko fi nga xamante ne fa ko suñu papa yi tegoon te loolu yaakaar naa mi ngi ci yoon bi mi ngi ciy liggéey liggéey boo am solo di jëfal ñi nga xamante ne ñu lay àndal di liggéey muy staffu jàmbaar production bi yëpp kenn ku ci nekk ci ñoom yaa gën a bëgg liggéey bi maasul kenn koo ci toogal mu wan la ni man liggéey bi man maa ko gën a fonk Mansour muy Papa Gueye muy Papa Sow muy assurance muy ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi ci groupe bi Serigne Dame Jonn Assane yéen ñëpp koo ci waxal rek mu wan la ni man Mansour lii muy def gënuma koo bëgg te loolu nag mooy ànd ànd dafay dëggu ay nit bu ñuy ànd dañuy bëggante yéenante lu baax yéenante jàmm te loolu gis nañ ko ci seen biir di leen ñaanal yàlla sunu borom sàmm leen yokku leen Mansour félicitation bis bi tey boo gisee ni mu mel say ay valeur moo ko waral nit ñi kenn moomu leen ay valeur rek ñoo mën a tax nit ñi jub te valeur yooyu yëpp gis nañ ko ci yow yàlla yàlla sàmm la bébé bi juddu tey yàlla nañ dund ci barke Seydina Mohamed ba koy ñaanali soxna yàlla nañ dund ba ba mu teral la ci barke yonent bi ñu ngi kontaan bu baax di jégaluwaat kàddu yi ñu fi jël Serigne Mbaye géwél yi ñu fi fekk yëpp suñu mbokk yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax Abdou Aziz yow da ngaa baax suñu mag nga ci Grand Dakar suñu papa nga mais lépp lu fay lu baax oyof tamit soo comme lu Ndeye wax léegi rek yàlla moom mooy def nit kilifa xëy na xale la mais comportement kilifa la yor wax dëgg yàlla ku mat kilifa. ci doxinam ci waxinam ci jëfinam lépp ba tax dañuy ñaan yàlla gën koo dëgëral ba yéene yi mu am ci njaboot gi am ko ci ay nitam am ko ci lépp liggéeyam daal yàlla dimbale ko moom ko mottali vraiment te am nañ yaakaar bu baax ci moom. xam nga parce que mu koy doxee vraiment mu koy waxee te mu koy jëfee am caractère bi tamit di ko ñaar yàlla rek may ko gudd fan ak wér ba yéene yi mu am yàlla dimbali ko rek mottali ko incha allah. dégg naa waa yu ma football la woon. ah dégg naa ku ma football la woon. non non non football moom mooy loolu mais man dèjà di ko seeree sax naan bëri man ko da tax ngeen ba ak man suñuy bëri day <laughs> suñu bëree day rafet rek non mais vraiment champion la sportif la te ku moo tax tey xam mu ñëw di investir ci làmb. mën na ne la mënoon na investir ci leneen. mais boo ko yàlla dimbalee mu ngi def lu gitu. hmm. hmm. mu am delloowaat ko ci làmb ba tax na dañ koy ñaar tamit yéen gu mu am ci làmb te lépp xam naa wax dëgg social la ko ci dugal te bëri bëri na parcelle xam nga ñu taxawal fii écurie muy jàmbaar mu xool nu muy accompagner xale yi liggéey la ba tax xam naa loolu moo tax mu dugg ci làmb mais dañ koy ñaan daal yàlla na ci def lu ci kenn deful ci làmb vraiment waaw parce que moom mu jëm kanam mooy parcelle jëm kanam mooy Sénégal jëm kanam mooy jeunesse yëpp jëm kanam parce que xam nañu yéen tamit ci jeunesse bi vraiment bi Ada Fass waaw vraiment kontaan rek xam nga amoon na euh, tuuti rëkk-rëkk ba ñu bëri tiitoon comme sama saari mais alhamdulilah yàlla mujj na ko taaral ba affaire bi réussi total daal xam vraiment yooyu yëpp yàlla da koy fay xolam rek quoi yéene bu am ci nit ñi ak di ko jëfee moom la ko moom la ko yàlla fay vraiment di ñaanal ko rek yàlla lafal ko cat moom ak njabootam ay waajuram yëpp incha allah ko laaj sa diggante ak Ama ñeen yi ñaan yoo xam ne mooy fekk samedi incha allah fan nga toll ci wàccaay wax dëgg yàlla lu ñu a nekk ñoo ngi ci mais tey du mooñ fi maa la ko ñaan ba

Omar Sawar ndóobo yeegul ak Sawar. ndóobo yeegul Sawar. waaye bu ñu bëggee mu ngi nii ah yaakaar naa ne moom moo waral tey jotaay bi le PDG de Jambar Production Mansour Ba PDG ñu ngi leen nuyu di la ziar. waaw ba yaa ngi si jàmm ñu si jàmm bu baax yaakaar naa mbégte nga yow de waaw di sant yàlla rek sant yàlla parce que lii moom sant yàlla mun mënu koo wees nga xewle woote ñëpp ñëw vraiment da ngay kontaan kontaan naa trop sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp am doomu góor duppee tur bi sa papa mu sa complice la non comme li may wax rek am na loo xamante ne du surprise ah. ci ñi fi nekk ñëpp du surprise su ma amoon leneen lu ko ëpp Euh, noonu laa koy defee donc parce que ginnaaw yàlla lépp moom la comme ni ma koy waxee chaque jour di wax ne rek euh, euh, yar nañu teg nañu fu ñu war a conditions yu baax di ñu jàppale di ñu conseillé boo ñu gisee ñun ñaar doo xàmmee kan mooy papa kan mooy doom ndax dañuy foo di bëri di kaf mën naa ne après tout sama xarit la di ko sant bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér. nga woote waa Thiaroye Géejawaay fépp waay mën a nekk ñëw na sa bis teewal la macha allah ba ci promoteur yi tey le roi des arènes Modou mu jëm combat lu yàggul dara bàyyi ay yittam yëpp ñëw teewal la présence Modou Lo en tant la def si yow. Modou wax naa ko démb bu ñu demee interdit démb maa ngi leen expliqué suñu relation ma ak moom Modou nit ku baax la daanaka ñun parcelle Modou mooy suñu patron ñun. parce que tey moom mooy suñu porte étendard mooy suñu drapeau donc ci lépp dañuy topp ci ginnaawam di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér. da ko ñaanal li ma bëgg ci xolam moo ko xam yàlla na ko yàlla defal nit ku baax la au delà de làmb Modou nit la nit ku baax la foog nga xam ko nag foog nga pratiquer ko pour xam ban genre nit la mais doomu aadama gënu ko ku yàlla la ku doyloo yàlla la wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax nee na buy gis ngay def ay social gars yi di wax day day ree rek te xam ne Mansour mën a def lu ëpp lii waaw amaana moom moo ci jiitu li muy def lu bëri lu bëgg sax nit ñi wax dëgg yàlla man ma xam ci lu bari muy nit koo xamante ni yàlla da koo baaxal waaw wax dëgg yàlla man sant naa ko gërëm naa ko am na ku bëri foo xam ne moom foofu féete am na bu gisee lu baax nag may woo ne ah dugal ci lii kon kooku amuñu fayam ñu ngi koy ñaanal jàmm ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam. nee na ni nga mënee woon football noonu <laughs> li may daan bëri na trop moo tax ma bàyyi. non moom bu ñuy daan bu ñuy yërëm moo tax ma bàyyi. lan nga mën a fàttali si moom ban année dong nga mën a fàttali si moom la nga xam ne doo ko fàttali. Modou Lo bu muy bëreeg euh, Eumeu Sène bu njëkk bi man sama xalaat laay wax ci siècle ci siècle bu ñu génn c'est le meilleur combat bi ngay gis ne tey en matière de lutte pure parce que boo xoolee. war na fa xeex war na fa bëre war na fa jom war na fa fula war na fa fayda fekk Eumeu Sène nekk tey ci sommet de sa forme ñëpp di moytu Eumeu Sène Sénégal ñëpp ne Eumeu Sène day rey Modou Lo ñu bëre bëre bu yàgg Modou Lo daan ko jël bu rëy boobu la wanee Sénégal yëpp yëpp yëpp que c'est un grand champion que ne tey mu am da koo mérité li nekk ci moom yëpp wanee ko ko wax dëgg yàlla. mos na mos bëre ñàkk affaire bi bett la jaaxal la. waaw du ñàkk. du ñàkk mu bëree mais làmb la da ngay daan tey suba ñu daan la am na kombaam yoo xamante ne bon voilà da ngay xam ne jomam moo ko yóbbee muy def yenn nii mais champion la la tey li mu am nii tollul ni gars yi gars mu nekk roi des arènes ça va tout dire. saa yi dama waa Pikine ñoo ngi wàcc. li wax daal mooy ñun waa parcelle moo doon mooy suñu patron mooy suñu porte étendard. mooy le président. mooy suñu président ñun waa parcelle. moom mu na na nga muy denc rek. super day tooñ rek mais xam nga tey li may wax làmb du animosité Ama le champion la nit ku baax la vraiment Ama Baldé tase nañ benn ñaar mais nit ku baax la ku baax la ku am yar la ku joxe cër la kon ay adversaire benn ngool la bu jeexee dañuy jàll ci leneen comprendre nga nit ku baax la dama koy répété son frère Jules Baldé aussi di nit ku baax di ma conseiller bu ñu tasee di ma xam nga donc làmb la affaire benn tàkkusaan la rek xam nga bu jeexee Pikine ak Parcelles jàmm moo fi xaj da ngay am. non non ñu bëri dootuñu fi dugg. non loolu ay wax la rek yooyu moom duma ma ci du ci bëgg a sori ay wax la rek li may wax daal mooy mbër bi di Ama Baldé di Jules Baldé magam di Abdou Bakhoum ñi ma xam. fuñ ma gis dañuy waxtaan ci jàmm ak salaam laa mën a ñu toll foo xamante ne dañuy jaay combat bi ku nekk wax ku nekk